bismillah président Macky Sall day ah lañ ko doon dooyee ci fukki at yi lée de mar d' itali ubbil tribune yéene kaay journal bi ne bu dee ñenn ñi ne atam yi lu baax la ñenn ñi ne jàpp nañ ne fukki atam yi lée saful yàpp saful jë waaye leen daal xam naa ni mën nañ ko caatiyee ah mooy Macky Sall njaaye mi naxaate rek la marchandise bi yëpp ci naxaate la ko la parce que nag lam fi waxee ne danañ ko fi dindi te Abdoulaye Wade tegoon ko fi day ci lu bon Macky Sall dane woon juróom ca la fa seenee teg nag kon nguuram kii bokk na ca dindi fi kumba am ndey kumba amul ndey gi am ci dund gi injustice sociale wàllum koom gi yoonu yokkute dara defu ko démocratie ak jàmm ci ci réew mi gi dara defu seetlu gi daal mooy lam doon xasee Abdoulaye Wade moo Macky Sall ma nga jël nag wàllum justice bi di ruux instrumentalisation de la justice waaw tey la fi gën a nekk la wax wàllum transhumance koo aak jël njabootam gi la moom Macky Sall dugal ca biir nguur ga tey la fi gën a ne jël les moyens de l'état alalu askan wi lée di ko politiquer tey la fi gën a ne Macky Sall mi ne woon la patrie au-dessus du parti dara amu ñaari atu yàllaa ngi ni lée daal koy dese ci nguur gi waaw Macky Sall moo woon ay tabax ak ay tali loolu tax koo jóg defaraat koy état de droit furaas tey la a bon troisième mandat baa ngi ni lée ci dara lu leer nii wii nii non te moo bii nga xam ne xaw naa tukkil adduna Sénégal ñaata bakkan a fi rot bari journal ne Macky Sall ne fukki atu yàllaam yi lée waaw tey wax la fukki yi nga xam ne dafa am ndam ak fukki yi nga xam ne kon dañ daanu indépendance de la justice ki lée Macky dafa daanu mal gouvernance administration bi nga xam ne kon da koo politiser emploi des jeunes Macky dafa daanu démocratie bi na ko rey secteur du transport Macky dafa daanu cool suuf litige foncier Macky dafa mbokk yi nga xam ne ne dafaa am ndam day infrastructure tali kenn du ko lekk wàllum essor am na ca ndam gis nañ pétrole a gaz waaye dara leeragu fa diplomatie ak suñu dëkkandoo yi ne Macky dafaa am ndam jam ñaa joge Macky jël ku ba la tenue du budget am na fa ndam wàllum cet-cetal gi lée am na fa ndam corona gi lée am na ndam njëgu dund gi lée am na ndam loolu moom lu ñu war a xoolaat critique yéene kaay ne ba day am na ndam dundalaat na Sine Saloum yéene kaay gi ne en tout cas Macky juñ le quotidien yéen a kaay ne waaye gis nga nag fitna gi ci wàllum politique waaw waa Benno Bokk Yaakaar day Ousmane Sonko lañ dem bët de Abdou Fall waaw nee na Ousmane Sonko soxlawul ñuy rey junni nit ngir doon président te jamono jooje Serigne Assane Mbacké waaw daal dinay bàyyi parti démocratique sénégalais dem na Pastef eh, eh. jaañ eh. si mbeng day yéen a kaay ma jamal jàngi nee na ginnaaw nag ba mu ñàkkee élection locale ya waaw songaat na ti waa woon de bëgg a gañe kay la de Barthélemy Dias kamu gañe day di Abdoulaye Diouf Sarr réew nee na ñoom ñaar daje nañu joxante nañu loxo looloo yoon la quotidien yéen a waaye ndorteelu signature yi ci wàllum parrainage geeg élection député yi waaw xëccoo bee mel ni tulleeg ma le laa wax laas président Macky Sall waaw organisé élection local yële santaane wu ma ko te def ngeen waaye boobee nag yéen da ngeen doon wutal seen bopp waaye élection député yi man la Macky Sall man la ñuy wutal li ma bëgg nag mooy fii ci Fatick gii pourcentage bu rëy laa fi bëgg 24 heures yéene kaa ne de Macky Sall kay xamal na waa Sine googe ne leen 80 pour cent 90 pour cent laa fi bëgg Siré Sy président mouvement politique góorgóorlu yi lée nee na ñoom dañuy dem ci élection député yi de ah waaw alerte yéene kaa ne ma ngay wàññeeku de ngir cohabitation dëkkandoo ak Macky Sall mi lée parce Macky Sall contrôle judiciaire mais li doy na waar li doy waar kay Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mi doon lancé mouvement moo ko wax nee ñeenti weer ba mu desee ci élection yi lée am na ci ay opposants yoo xam ne day Macky Sall ñeenti milliards la leen jox la ilaha illallah Cheikh Abdou day yemu ca parce que nee na man bokkuma ak ñu ñuy jënd ci côté askan wi la laa bokk te élection député yi danañ ca dem Sud Quotidien élection législative bu 31 juillet yooyee la waaw midi moo nar a am laa la wax professeur Mamadou Diouf jàngalekat la ca Amérique nee lii may gis ni lée dundu mbaa dee une question de vie de mort muy nguur gi muy opposition bi laa la wax professeur Diouf ne te ñett ngi nii ma bëgg la koo lima gis nga problème troisième mandat résultat yi nga xam ne moo génn nag ci élection locale yii mais wane na ne nit ñi ci d'accord laa la wax troisième mandat du fi ñaareel ba mooy Macky Sall campagne la ko dindi ba mooy élection député yi la bu boobaa cohabitation dëkkandoo day am te Macky Sall kon du mën a def kon troisième mandat bale laaste te jamono jooje Cheikh Oumar Anne waaw daal dinay jot nag njum ci mobilisation Abdoulaye Daouda Diallo tamit ca Podor kële teral na fa jigéen ña de ñaar fukki billet Makka ak ñaar ñaar fukki machine wala ak ñaar téeméeri million financement téeméeri tonu ceeb eh way samba laaste le maire Racine Talla day ma ngay ak waa wàq a du ca dal day te du ca dal ëllëg wax parce que école maternelle boobee eh. askan wa daal nee nañ fa bëgg mooy maternité ak benn collège waaye centre commercial moom duñ ci day te duñ ci d'accord ëllëg l'indépendant yéene kaay ne yu ñàkk teggin ak raciste yi nga xam ne kon moom la Éric Zemmour candidat ca France yëkkati day Sénégal naxarul nañ ko te xam le nañ ne rek boo sàgganee waajoo jee ko yóbbu fa mbaxana nekkee benn a kay waa société civile international rek ak nations unies kese l'observateur ne ben société nationale bu bes buñ fas yéenee denk mbalit mi lé ma ngay ñëw de mbir mi nak amna ay risque lol ay risque kay ci match retour bi la Sénégal Égypte waaw gaañaa ngay anticiper nak ngir bañ débordement am yéene ka gi ne en tout cas Sadio Mané ñi ma àndal day war na ñoo def seen tlay katan ngir gañ match bi nak waaw waaw ngir réew mi mëna and ak dal dem na ci lamb jë tribune sox ak vox populi waaw ne am seen day daanatina bombardier bii mooy ñaareelu yoon yéene kay démé ja gi ne am sen day fekk ne nag waa génération 2.0 mooy Modou Lo daa daan Eumeu Sène ñaari yoon Eumeu Sène daan Balla Gaye ñaari yoon bala Gaye daan Modou Lo ñaari yoon léegi Eumeu nag daan na Bombardier ñaari yoon waa ñii moom kan moo man <laughs> en tout waar de waaye nag lu lamb ji doy waar doy waar doy waar doy a doy suñu pétrole bi de déedéet suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek